bi ma ñëwee biñ ma falee déjà ma am avant may prêter serment laa commencé xool fan laay jëlee réew mi première chose bi ma def boobu maa ngi hôtel Azalay dafa am ñi ma woo ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ma yàgg di leen suivre woolu leen ci seen xalaat laaj leen naka la ñu gisee situation bi ñu wax ma seen xalaat ma commencé saytu ba xam ndax réew mi may jël lii ay stock de sécurité ci wàllu lekk lii approvisionnement ci wàllu carburant pour courant ak leneen ak leneen loo xamante ne mën na jàmp fan lañ ci toll bi ma commencé def exercice boobu am na li ma gis lu ma jaaxaloon loo xamante ne buñ ci bàyyiwul woon xel xëy na mënoon nañ avancer tuuti rek ñu ne coupure commencé na parce que SAR amatul approvisionnement parce que fekk nañ fi loo xam ne ci wàll woo wax dëgg yàlla doyoon na waar waaye xel xel boobu ñu am ci njëlbeen xool ci secteur sensible yi fan lañ ci toll wax woo direct DG SAR bi mu ñëw ñu waxtaan ak moom mu am lu ñu wax woo DG Sénélec woo directeur du commerce intérieur woo ñeneen ak ñeneen ci biir administration bi ancien ministre du budget woo ñeneen togg ak waa FMI woo ñëpp ci lañ xam ne situation bi ñu fekk nii xaw na doy waar trop trop trop trop pour dire le moins waaye tax na tamit ñu gaawantu jël suñu matuwaay ba bato bi nga xamante ne dafa defoon na fi weer mënul décharger parce que fayuñu ko woon ci saar ñu defi pexe ba bato boobu ñu fay ko ba beneen ñëw ci gannaaw ñu fay ko pour ñu mën a assurer approvisionnement wu saar ak hydrocarbure mu wóor ñu ne tamit duñ toog weer rek courant coupé ñu fekk tamit ay yeneen mbir yu doon nit ñu doon gaawantu di def parce que xam nañ ñu ngi dem ma jël ci misaal rek xëy na dinañ ci egg ndox nit mën na bàyyi lu ne ba mu des ndox ñu ñëw le vingt neuf mars ma fekk sama prédécesseur ki ma fi bàyyi ki ma fi wuutu ñu mu àndal signe arrêté pour yokk ndox mi le vingt neuf mars kon dama doon toog rek facture yi facture yi naaw ñu ne ñii la fekk ne ñoom ñoo ko signé ma gisaat ay contrat yoo xam ne surtout ci biir liggéeyu hôpitaux yi dafa am contrat yu ñuy doon baral boobu dafa guma sax prestation de serment ci laa woo le ministre de la santé de l'époque nee ko contrat tel tel tel buñ ko signé contrat boobu ñu taxawee ko te li ma ci gisoon ci ay surfacturation bu ñu leen waxee ngeen ja yaakaar ne sax loolu mënta nekk biir Sénégal ba tey dañoo bloqué lépp luy contrat ci wàllum santé yi nga xamante ne commencé wuñu woon di ko exécuter parce que le fi ñuy egg ci surfacturation c'est inacceptable ba ma ñëwee seet si sama euh, ki ma fi wuutu ñu nekk di visite bi ñu toogee ci jeudi boobu ma ne ko gis naa ne ñu ngi def benn convention boo xam ne convention la ak na fekk ne signé woon nañu vingt cinq ans avant mais convention bi arrive expiration ñu gaawantu war ko joxewaat vingt ans plus tard pour les vingt vingt prochaines années ma gis na nu ñu ko tegee le intérêt wu Sénégal yi ça n'a pas été préservé mu ne leen bàyyi leen ko kase leen loolu defaat leen un nouvel appel d'offres pour mu wóor ñu ne que les intérêts du Sénégal sont pris en compte te bës bu ñu ko defee ba pare ngeen gëm-gëmale ko convention bu ñu arrêté ak bu ñu am di ngeen xam ne intérêt Sénégal préservé nañu ko ñun par rapport déjà